mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen daan ak ñun sans limite TV reine de beauté classicisme naturel et puis jolie et jovial borom 2STV borom matin bonheur elle ravit la vedette à tout le monde elle ne passe pas inaperçue au Sénégal sollicitée partout dans le monde Astou Dione Dione Déthié Allé Racine mi ci càjjaay mi nga xam ne waxal nañ ko lu nekk ci réew mi waaye mosul tontu yàlla ñëw na ak sang bu baax monsieur Seck Seck sa njëree ma ca mbéy saxa yaa nga lambaay may saxaree ma ca njomb birima joor leena joor cum Astou Dione mi nga xam ne fu mu jaar ñëpp di astu jonn rekk léegi astu jonn sekk la cum xew baa La journaliste Assoudjon de la 2STV s'est mariée. Elle est devenue maintenant Madame Seck heure ménage yal na yàlla barkeel borom voix bu neex bi macha allah réew mi yépp gi jóg di la ñaanal ndax astu baax na astu gën na elle est digne elle est très respectueuse réew mi ñëpp bëgg nañ ko ñëpp ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax a baax ci sa sëy bi sëy bu barkeel njaboot gu barkeel heure ménage Assoudjon Seck